mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fas yéene dellusiwaat ci seen pëj bii di bis ta tey ngeen baaxoo di ko am diirub weeru koor yi di ci ànd ak Aba Moussa Imam Yàlla yi mën ngeen a di abonné ngir ngeen di mën a jot suñuy vidéo moo xam bis na tey ñu leen ci rencontré histoire wala taalif wala sax ay vidéo information fukki fan ak ñaar ci weeru koor bis na tey amoon na ay xët-xët ni ki ay jàppante yu métti yu amoon ci marché Ocass bi ci Touba marché Ocass di marché bi gën a rëy ci euh, Touba nde euh, ñi ngi ko sos ci euh, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 1957 ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke mi nga xam ne moomoo moo nekkoon ñaareelu xalifa ci jamono boobu guddaay bi ñu mën koo natt ci lu ëpp ñetti téeméeri mètre yaatuwaay bi ëpp juróom-ñetti fukki mètre wax nañ ne sax ci jamono yi ubbitel marché boobu la ñu siiwal ndakaaru wàccib liggéeyu sëriñ Babacar Sy xalifa maam Seydi Hadji loolu mooy 25 mars 1957 marché Ocass tur wi di turu arab nde ñi ngi ko tuddee Ocass di benn marché bu rëy boo xam ne ma nga nekk ca biladul arab muy réewi arab ya ci diggante Makka ak Taïf mu nekkoon marché boo xam ne arab daan nañ fa daje lu gën a bari nit ñi daan bàyyi ko ci ay réew yu sori daan ñëw Ocass ngir foofa daan nañ fa jaay ko jënd niki daan fa becc seeni way ndax ku ne xam ne arab ay way lañu folle lu jëm ci amirul shuara muy ki dàqaway ci arab yi ak la ci aju muy okaz mu mel ni kon tur wuy na borom ci xumbaay ni ki noonu bëri mbooloo ni ki marchandise kon euh, fukki fan ak ñaar ci weeru koor bis na tey ci yatuma 2017 am na ay xët-xët ak yi jàppante yu amoon ci diggante jaaykat yi ak takk der yi ak ginnaaw boo xam ne ñoom takk der yi doon nañu tere jaaykat yi te jaaykat yi fii ñuy seen kaw la taxoon ñoom takk der yi daal di soqi ay soox ca seen kaw waral am ci jële ay gaañu gaañu ñu rawale leen hôpitalu Matlabul Fawzeyni waaye ginnaaw bi yàlla def ci jàmm ba bakkan rotu ca loole bis na tey la woon fukki fan ak ñaar ci weeru koor atum 2017 fukki fan ak ñaar ci weeru koor bis na tey la suñ borom subhaanahu wa taala wàcce téere bi ñuy wax zabuur zabuur mu wàcce woon ko ci intu yàlla daawuda alayhi salaam moom daawuda sax ci xeex bi doxoon diggante taaluuta ak jaaluuta ku ne xam na ne moom moo jeexaloon xeex ba loola it moo ko jotale woon ca nguur ga mu nekkoon buur waaye nekkoon ab yonant niki doom jëli Suleymaan nekk buur waaye nekk ab yonant Ousmane sax bokk na ci ñi mës a yilif àddina bépp ndax dañuy wax ne àddina bi ñeenti nit ñoo ko mës a yilif ñeenti buur ñaar ñi ay jullit lañu yeneen ñaari ay yéefar ñaari jullit yi mooy yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam ak ki ñuy wax Zul Qarnayni kon ñaari jullit yooyu nee nañ ñoo mës a yilif àddina bi buuri yéefar yi di buxtu nazar ak ki ñuy wax Namroos fukki fan ak ñaar ci weeru koor bis na tey la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon diggante muhaajirina yi ak lamsaar te ginnaaw bi saxaaba yi bàyyi ko Makka ñëw Madina booba la yent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn ay nit ci Madina boole leen ak ñiy jóge woon Makka loola lam ci jublu woon mooy ku ci nekk bañ a tumuranke am kum la mbokkaleel ci Madina dina mu taxawala ci kër taxawala ci dund ak lépp loo xam ne ab dëkk da koy soxla loolu mi ngi yemb laata ñuy xare badar ginnaaw bi tabaxuk jàkka ji noppee ci madina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk bokkale na leen mbokkoo goo xam ne ñoom seen biir sax dañ daan donnante donte bokkuñu ndey ak bàyyi keroog dafa jël ki ñu wax ah, xaarija bokkoon ci lamsaar mbokkale ko sayidna abou bakrin siddiq jël omar ibnu xataab mbokkal ko ko umayru ibnu saayinu bokkoon ci lamsaar jël ousman ibnu affan mbokkale kook awzu ibnu saabit jël ali ibnu abi taalibin mbokkale kook sahl ibnu xanifa jël zeyd ibnu xaaris mbokkal kook usaydu ibnu jaafar niki noonu marsat alganawi ak ibadatu ibnu saamit zubayr ibnu mu mbokkal ko kaab ibnu talxa mu mbokk ko ak ubay ibnu kaab ba na mu jeexee loole kon fukki fan ak ñaar la woon ci weeru koor bis na tey at mu njëkk ci gàddaay gi fukki fan ak ñaar ci weeru koor bis na tey atum 829 ci la jullit ñu ubbi île bi ñuy wax xabruus fukki fan ak ñaar ci weeru koor bis na tey ci atum 597 ci la boroom xam-xam bu mag bi faatu di abil farji abdurrahman ibnu ali ibnu muhammad al qurashi al baghdadi nekkoon ku dégg fiq nekkoon ab waaratakat ñu gën koo xam ci ibnu Jawzi ci fan ak ñaar ci weeru koor bi setey la xaaji ibnu Muhammad ibnu Xalaawun ñu gën koo xam ci malikul muzaffar di buur bi nga xam ne moo njëkk gàmm ci àddina bi fekk baax ca fi ñu wax Irbil Irbil nekk ca Iraq bis na tey la folli woon ki nga xam ne moom mooy Sayfuddin bis na tey ki fan ak ñaar ci weeru koor la Cheikh Jamaldin Muhammad ibnu Abdillah ibnu Malik dal di faatu ñu ko dàkkantalee Abu Abdillahi Attaai Alxayaani Annaxawi ñu gën koo xam ci ibnu Malik moom moo taalif téere bu mag bi ñuy wax alfiyatu ibnu Malik mu nekk téere boo xam ne day jàngale grammaire arab kon mi ngi faatu àllarba fukki fan ak ñaar ci weeru koor bis na tey ca Damas téere bii di ibnu Malik nag siiw na lool ndax daanaka monde islam bi ñëpp a ko xam mu tàmbale woon ko ca kalaamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa xarfun kalim fukki fan ak ñaar ci weeru koor atum 1425 bis na tey yemoo ko 26 octobre 2004 amoon na ay xët-xët yu amoon ca réewum Thaïlande ba ñu rey ci juróom fukki jullit ak juróom-ñaar loola ma ngi nekkoon ci yoxo yi takk der ya ginnaaw ba ñu génnee doon ñaxtu ca bët gànnaaru réew ma di sàkku seeni càkkutéef boobe la takk der ya soq ci seen kaw ba rey ci lu toll ci juróom-ñetti fukki ak juróom-ñaar